Carlo Ancelotti koy dooree moom mi nga xam ni euh, match bi nga xam ni war na ko am demee euh, ci kàddu suñu borom ma nga cee yënki ay kàddu di wax ne match ba dina nekk match boo xam ne bu métti lay doon ci ñoom ndax ñoom ñi nga xam ne ñoo jóge fële ci Chelsea ba ñu ñëwee récupéré nañ waaye cent pour cent physique bi nag moom loola moom du mën a nekk wala boog gars yi duñ ca mën a yëkkeeku cent pour cent mais dinañ def lu am pour gagner loolu nga xam ne mooy match ba ak Luka Modric mi nga xam ni moo nekk nii ngeen gis ko ba muy nekk jamonoy 2003 ya nga xam ni euh, da doon rajaxem Europe gi yëpp waaye tey jii amul benn wuute boo xam ni uh, ci màggetam wane ne ni maanaam moom mii am na ñàkk doole goo xam ne ñàkk na ko waaye liñ bëgg ngeen xam ko ci Aladji Malick TV mooy Modou mi nga xam ni jamono jii nga xam ne fii la toll woon di am ay fukki at ak nangam ak ñaar fukki at uh, ak jamono jii nga xam ne fi lay am fanweer jëm kaw benn changement amul ci moom gone ge ba léegi dafa gën a saf ak Borussia Dortmund mi nga xam ne fukki match yoo xam ni ay victoire la yoo xam ni daf koo am ci li nga xam ne mooy bundas Bundesliga booy nga xam ni moom la na bi ci mujjee yëkkeeku tey jii ci vendredi bi nga xamee ne moom lay dem ah, de football ca ñax ma nga xam ni moo ne ca stade Stuttgart Karim Benzema mi nga xam ni euh, mu ngi nii ngeen gis ko ñu ni ko xang euh, muy euh, reetaan mbégte boo xam ni am na ko ginnaaw ba nga xamee ni moo nekk premier joueur boo xam ni nekk na ab français boo xam ni ci lu matul fukki bii wala boog luy toll ci fukki bi ak benn mu dugal ko ci benn saison boo xam ne saison Ligue des champions la mu nekk première boo xam ne ab doomu français def na ko euh, ñu koy féliciter bu baax a baax jamono jii may wax jaw yow Karim Benzema plus que jamais il est le meilleur joueur du monde actuellement